lillahi wa lirrasuli iza da'akum li a'uuzu billahi mina sheytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki julli yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaanal Cheikh Mahmadul Muntaxa suñu boroom yàggal ko fi te wér boo leen déggee alxuraan jooju ngeen xam ne am na bis boo xam ne mi ngi moom la ñuy dégmal di ko waajal muy bisu alxuraan di bis boo xam ne nag waa daara yi Munawwirul Bunyaan bu Serigne Baara fii ci Sam guy mbind de ci njiitu Cheikh Amadou Bachir moom Serigne Cheikh Thioro ñu war ko amal ñeenti fan ci weeru juillet yi nga xam ne mooy ñëw incha allah war a dëppoo alxemes bis boobu nag di bis boo xam ne moo tax tey Serigne bi daje fii ngir ñu woote ko ci teewaayu Serigne Bachiru Mbakke bis boo xam ne nag dañu koy dara jaale Serigne Mor Mbaye Cissé di ko ci delloo njukkal di kenn ci magi alxuraan ñi nekk ci toolub alxuraan doon ci liggéeyal Serigne Touba waaye nag Serigne Bachiru Mbakke mi nga xam ne mooy def bis jaaroon ci loxoom nga xam ne nee na moo ko toppal ab kaamilam loolu tax mu di ko fàttaliku waat di ko delloo njukkal ci bis bi waaye di ci fàttaliku nag ñoo xam ne lañ leen ci rendul hommage muy Serigne Cheikh Mbacke Darou Rahman moom Serigne Abdoulahi moom Xaadimu Rasul te kenn ku ne xamoon diggante Serigne Baara ak Serigne Abdoulahi waaye kenn ku ne xamoon taxawaayu Serigne Cheikh ci sàmm li fi Serigne Touba bàyyi woon ci taxawaay bu am solo looloo waral Serigne bi di ko ci fàttaliku ci ay ñaan ak soxna Bali Mbacke moom soxna Maymuna bintu Xaadimu Rasul borom laylatul xadar sëriñ bii di ko ci fàttaliku incha allah ci bis boobu moo tax ñu teew fii tey ji jataay bi nag incha allah nu mu war a doxee mooy dana tàmbalee kàddu yi sëriñ aboo Mbakke mi nga xam ne mooy wax ci turu daara ji euh, incha allah ak sëriñ Mor mi nga xam mooy wax ci turu sëriñ kër sëriñ moor Mbay Cissé mi nga xam ne moom la ñu euh, féetale bis bi sëriñ Mourtala Mbakke moom sëriñ Abdul Xadim moom Cheikh Mouhamadou Lamine Baara wax ci kàddu sëriñ Bachiru Mbakke sëriñ Maysa Diouf mooy wax ci turu parents d'élèves yëpp moo ñu féete daara ji ak ci école franco bi incha allah ak soxna Fati Guèye moom it ndey daara yi moo ciy wax euh, sëriñ Aale Wañaan mooy wax ci daayira Bidaayatul Xidma bi nga xam ne moo ne ci kër sëriñ Cheikh Thioro te wàllu organisation bi incha allah noonu la jotaay bi doxe bis bi nag ñun ko waxee léegi alxames lay doon ñeenti fan ci weeru juillet fii ci saam guy mbind de ci boqatul mubaaraka incha allah. Cheikh Mahamadul Bachir moom mi nga xam ni mooy njiital daaray Munawwirul Bunyaan mu ne daaray alquran. école arabe ak français ñuy woote ci seen tur nag ci bis boo xam ne moom lañ baaxoo daan amal di ko amal at mu at at mu ne ba tey jii nag ñu yegg si waat yi ñu war ko daal di amal moo tax ñu di ci woote muy bis la boo xam ne bis bu màgg la di bis bu tedd di bisub alquran ñu di ci woo mboolem képp koo xam ne ab jullit la rawatina koo xam ne ab morit la ak képp koo xam ni alquran mooy ngay safoo te moom ngay tiitaroo ndax Cheikh Mahamadul Bachir dafa jóg ngir liggéeyal maamam ci tool boobu te mooy alquran ak ci xam-xam moo tax mu war moo waral mu sos ñaari daara yi te mooy daaray alquran ak daara joo xam ne dañ fay jàngale arab ak français ñi ciy woo na képp koo xam ne alquran ñor na la te di sa tiitar nga di ko safoo ñi ngi la ciy woo ci bis booba muy bis la boo xam ne bu am solo la moo tax Cheikh Mouhamadul Bachir jël ko am ñum ko duppewaat mu duppewaat ko Serigne Mor Mbaye Cissé moom mi nga xam ni sëriñ bi xam na liggéey bu am solo bi nga xam ni moom la defal alquran liggéey bu am solo bi nga xam ni moom la defal diine ji te moom mu bokk ci ñi nga xam ni ci moom la ñu génne mu waral mu jël bis boobu na na duppewaat ko ko ngir darajaaleet ko ngir xam li nga xam ni moom la def ci moom lii nag ak cant la goo xam ni moom lay feeñal ci xolam ngir li nga xam ni moom la def ci moom mu wëlbatiku di ci ñaanalawaale sëriñ Cheikh moom sëriñ Abdourahman moom sëriñ Abdou Borom bi mu di ko ci ñaanalal ak soxna Bali Mbàkke ñoom ñaar ñi nga xam ne ay sëti sëriñ Tuubaa lan te ñu bàyyi woon xel lan ci sëriñ bi nekkoon ci la nga xam ne ci lan waroon a nekk sëriñ bi nag di leen ci fàttalikuwaale te di leen ci defal ñaan kon nag bis bi ñoo ngi ciy képp koo xam ne ab jullit nga ak foo mën a nekk rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a yëngatu ci alquran te yëngatu ci daara te xam ne bis bi seenu bis la bis boobu nag ci la ne amalaale conférence bi nga xam ne moom lañ daan amal ci école bi te mooy école arabe beeg bi ci bis bi incha allahu rabbi ci lañ koy amalaale ginnaaw waxtu trois heures bu jotee lañ koy daal di amal defal seeni euh, ancité yi nga xam ne moom lañ war a def kon nag ñu ngi ciy woo képp ku di am jullit li ñuy wax nag ci parents d'élèves yi ah dañ ko yëkkati ci turu Serigne Bassirou Thioro mënuñoo commencé wax ci parents d'élèves yi te waxuñu ci sëñ Bass ndax dana ko xamal mbooleem ñi nga xam ne si sëñ Bass da ngeen a bokk ak moom li nga xam ne si def na ko fii ci saam muy loo xam si rafet na lool lu saam bëggoon la lu fi ñàkkoon la lool lool lool ba wax dëgg yàlla fi nu nekk nii xale boo ci laal ak lu mu mënti doon moo xam français la moo xam arabe la moo xam alxuraanul la wax dëgg yàlla fi mu nekk nii am nañ bu baax a baax a baax mbégte bu baax a baax ci sëñ Bass faral di waxee du ñu dee wax ni dañ koy wutal promotion déedéet sëñ Touba moom moo ko defal promotion bi mu amee. sëñ Bass ku exemplaire la sëñ bas investissement bi mu def sàmm mënu ñuy mukk du ñu ko dee wax ndax lee mu yëkkati ne mënoon na nekk ay château ci guy mbind wala soit Mermoz wala feneen kon su jëlee lu toll noonu def ko saam ñun ñu dëkkee saam ñun danoon ko wax bu baax ba nga xam ne si mbooleem kuy jullit te bokkoon ak bokk ak sëñ Bass Coro ñaan naa la nga jël exemple ci moom ku roywaay la jour bi nag xam nañ ko. mooy le 4 juillet 2019 muy conférence boo xam ne si da daan door maanaam di di matin tey nag dañ koo bëgg a def suba gi ba ci ngoon gi muy tàmbalee ci maanaam internat bi ñu war a commencé maanaam de 9h jusqu'à quinze h def benn pose maanaam commencé waat naa 17h wala 13 15h et demi ba ba moo xam ba keroog li nga xam si mooy activités yi jeex. kon ñoo ngi woo mboolem parents d'élèves yi ni ma ko doon waxee rek parents d'élèves yi lii fi sëñ def nekkut loo xam ne luñ fi mën a déjati. kon maa ngi woo mbooleem ku yeewoo saam te xam ne lii nii sa mbég la sa alal la nañ ko toppatoo di woowaat ñi nga xam ne si ñoo jigéen ñi internat bi ñuy protéger maat ñi nga xam ne si dañ leen fay indi. di jiital soxna Fall Mbakke ak soxna maam say mi nga xam ne ñoom ñooy suñu doole ci biir kër gi ñu ngi wax nag euh, ci mboolem taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo aju ci kër gi. bis bi Cheikh Mouhamadul Bachir di taxawal fii ci Saam di bisu alxuraan te alxuraan xam ne mooy lépp. kon ñun bu bis baa nañ bàyyi lépp loo xam ne jàppoon nañ ko ñu ñëw teewe ko ci bis bi ngir ànd ak sëriñ bi ci liggéey bi ba mu am ni mu ko bëggee ndax taalibeekat kat bu xësee dégg ndigal lépp loo xam ne jàppoon na ko na ko bàyyi rawatina ñun ñi nga xam ne ay ndaw lañ te amuñu lenn lu dul sëriñ bi li sëriñ bi nekk dañ caa war a nekk ba mu jeex tàkk kon ñu ngi leen ciy woo bis bi di dajeek alxames la 4 mboolem taalibe buy dégg sama kàddu na nga xam ne bis bi sa bis la lépp loo jàpp na ko bàyyi maa ngi woo sama mbokki soxna yëpp nag sama uh, mbokki ndey daara yi di woo sama mbokki soxna yi nga xamante ni ñoo dëkkee biir saam maa ngi woo ñëpp diwoo mbootaayuk waa mag Maguette Ndiaye di woo mbootaayuk Mati Dia ñëpp na ñoo teew di woo mbootaayuk Ndey Faal di woo mbootaayuk Mamba di woo mbootaayuk Awañang maa ngi woo mbootaayuk Maam Jaaraloo Njaxate maa ngi woo waa Ndeye Daara yëpp daal maa ngi leen di woon na ñëpp teew si bis bi. man nag ku teew ku ñàkk solo laa ko xam ne dama ñëwee rek kaddu sama nijaay monsieur Abdoulahi Lahat di xalifa bu Serigne Mor Mbaye ak sama waajur nekkoon kenn ci jëwriñu waa kër ci biir kër ga ci kër Serigne Mor Mbaye Cissé xam naa nag bette. jotaay bi rek moo ko waral ak nim xataay gi waaye ñoom ñoo waroon a teewal seen bopp ñoo amoon yéene it ñëwal seen bopp ma ñëw fi nag teewal leen ñoom ñëpp rek ñoom nag ñoo ngi bég ñoom ñëpp day sant bu baax a baax a baax te xam ne lii suñ bas def de ak mbaax képp ak waral ak amu kóllëre kóllëre sàmm kóllëre ndax ñi ko fi war a mën a tuddee bëri na lool bu bàyyee ñëpp nag tànn dem ba njaareem tànn tànn tànn tànn tànn suñ mor bay sise kon day mel ni loola ak góllëre rek moo ko waral waaye xelam mënoon na ci mën a génn wala mu tànn ñeneen waaye loolu ak mbaax rek moo waral loolu nag bigloo na mbooleem koo xamante ni ci kër ga nga moo xam ngay taalibe moo xam ngay njaboot ci njaboot gi doom yeeg sët yeeg ñëpp big nañ ci de ko ci sant bu baax a baax a baax a baax kooku ñu ko tuddee nag muy suñ moor moom ku ne xam na ni itteem lépp alxuraan la woon amul woon benn benn yëngu wala lenn lu ko kenn mës a dégg ci lenn lu dul daawul dem génte daawul dem céet daawul dem ak denc daa wax naa du bu ma xëyee lenn rek la sama xel di ne te mooy liggéeyu Sëriñ tubaab yi rek di woo ci woote ci kàddug Sëñ Laat ndax moom laa fi teewal rek man ñàkk solo la ci ñoom ñuy woo mbooleem ko aju ci kër kër gi rek ñoo ngi ñaan bis ba te mooy foog naa mooy la kat bu alxames gi bu màggalu suñu Abdul Ahad gi bis bu màggalu suñu Abdul Ahad bu dellusee ñëpp nañ ci teew jàpp ci mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñi ngi am mbégte yëkkati suñu kàddu ci turu cheikh Mouhamadul Bachir moom sëriñ cheikh coro mi nga xam ne yu jaahidu bil ulumi wa bit tuqaa ginnaaw bi nga xamee ni am na ndigal ci kilifaam jëwrinam di cheikh Mouhamadul Moustapha mi fi toog toogaayu cheikh Mouhamadul Amin di woote bis boo xam ne daf cee bëgg gaaral lenn ci li nga xam ne mu ngi koy liggéey ngir sàmm ndonal cheikhul xadiim mi nga xam ne wax na moom cheikhul xadiim ni bi xidmatil kitaabi wal xadiis ci la ndonoom nekk ndono mu nekk di ko sàmmal cheikhul xadiim ak di ko ñoŋal te mu def ci jéego yu am solo la am yéene ngir gaaral ci lenn gaaralu ko nag wonewu ko ngir publicité ko waaye daf koy def ngir mu nekk ab soññee ci képp koo xam ne sàmm ak ñoŋal ak aar ndonal Cheikhul Xadim yitteel na la nga man cee soññee sa bopp man cee gis sa bopp ak képp koo xam ne liggéeyal Cheikhul Xadim ñor na la ci li nga xam ne moom lañu ñu bàyyeel te mu waxal boppam ni loolu mooy ndonoom muy xidmatul kitaab wal xadiis te mu nekk ci loola kon bis la boo xam ne dal loolu rek moo ko tax a jóg mu ci woo mboole mbokk yi wëllëre yi am di jàmm yi ak ñi nga xam ne ñoom la bokkal cheikhul xadim te warteef woowu war ñépp muy xidmatul kitaab wal xadiis di ndonay cheikhul xadim ñu sàmmal ko ko aaral ko ko ak képp koo xam ne sàmmal ak aaral cheikhul xadim doonaam loolu yittal na la mi ngi la ci woo bàyyiwul kenn bàyyiwul ñëpp di ñaan sunu borom tabaraka wa taala képp ku ci teew yàlla na sunu ba faj say aajo bi barakati cheikhul xadim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf mbokk yi kon dégg nga bis baa ngi noonu incha allah wala doon alxames ñeenti fan ci weeru juillet fii ci saam munawirul bunyaan daara ji nga xam ne Cheikh Abdoul Bachir moom Serigne Cheikh Thioro bi nga xam ne dañuy jàngale. arab ak français incha allahu bis bi lépp dañu koy yendoo bu nu xëyee suba lay tàmbali ba ngoon incha allahu lépp di tarib alquran ak donga yi nga xam ne ñoom it dañuy jàng nasaraan ak ñi nga xam ne luñ fa nekk cay jàng arab ñu boole taxawal ko taxawaay bu mat sëriñ bi nee na mi ngi koy fàttali ñëpp di ci woo ñëpp incha allah ñu teel a ñëw bu ñu xëyee rek 9 programme bi dana tàmbali bu soobee yàlla yendu lay doon kon jërë ngeen jëf bis baa ngi doon alxames incha allah nu ñaan yàlla suñu borom yàggal fi sëriñ Basiiru yàggal fi waa daara ji yëpp ba yéene ji nga xam ne am na ko ci liggéeyal ko lislaam suñu borom defal ko ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu laa tuksiri sakwa fakun mutajallidan xatta tazunna naasu annaka mun'amu anta saadi ilal jinaani wa nuuri xad nafayta laxiina sitta doora yaa kitaaban maal asa walxanaa